lépp en tant que kuy jàngale waaw yor peel di dóor. maa ngi maa ngi leen tooñ sax naan ci bopp waa la waroon dóor peel bi. ah déedéet waru <laughs> ko woon dóor ci seede ci ma bi la ko waroon dóor pour may ko tuuti moom it mu ñam. Ah. ndax neexul waaw neexul wujj dafa metti ñu koy masawu. ñu koy masawu bu baax ndaxte ku nekk jigéen rek di nga xam ne bokk nekkul. Mm-hmm. nee bi ñu yàlla ne bi yàlla dogalee góor ñi. teg ci ñoom wujj ñoom dañoo dee. Ah. dañoo dañoo dee. ñu ne comme dañoo seetaane xam. yàlla ne àtte nañ ko ci waxu nit ñi daal donc mu nekk loo xam ne yàlla moom moo ñu ko moo ñu ko nattoo hmm. mu nekk ay jullit ba pare nag nangu mais parfois góor ñi da nga xam da ngay gis ñoo xam dañuy takk ñaareel mais duñ ko man xam nga yàlla fa ne fan ki xul maa taabalakum mina nisaa mas na wa sulaasa wa rubaa wa in xiftum allaa taadilu fa waahid hmm. ñaar ñett ñeent parce que yàlla sax commencé wu ci benn ci ñaar la tàmbalee waaye nag dafa ne su nekkee mënu leen yam leen ci benn li yàlla wax lépp ci góor bu war a am jabar en général góor ñi hmm. duñ ko man ba pare dañoo man toj am ndaa toj boo gisee ñu ñun parfois ñu ragal wujje nekkul dañ koy rag ndax ndax ndax jën du ragal ndox hmm. sama damay wax ni sëy balaa mu neex dëgg dëgg nga amul ñoo hmm. kese ak sa waay da ngay ba da ngay taayal ba pare retour day am ndax li ngay def yëpp da nga koy da koy bamtu di bamtu te nit lu muy gis chaque jour rek su baree ci bët koy fowee mais bu nekkee am nga koo koy ay ay loo mu leer ni day def fii di dem fële di ñaan ku tukki doo xam fu dëkk neexee ma dama koo bëgg ci jigéen mu jigéen wujje ndax wujje dina tax nga gën a fonk li ngay def lu am amul concurrent rek baaxut waaw donc côté boobu moom euh, bëgg naa cee bàyyi lu jigéen ñi xel xam ne dafa ay julit lañu te góor ñi dañu am takk bañeent waaw suñu diine moo leen ko may euh, bi ci des mooy euh, li ma gis jigéen def ko nga xam ne tuutal na jigéen nag dëgg yàlla waaw tuutal na jigéen ndax nag mën nga bañ mais bul yàq buñ dañ naan ko rendi nag bàyyi ko mu yëpp koo takkal wujj danga koy bàyyi mu manifesté wu wax jooy def lu nekk mais bul yàq parce que yow li nga yàq pour yow la mm-hmm. ci sa kër la nekk te après yow mer gi day dañu léegi ñu defaraatal la ko donc am na yoo xam ne bu nga takkalee wujj day metti nee naa dugg sa néeg jooyal defar lu nekk mais moytu sax di wax nit ñi di la dégg parce que nit ñi dañuy ñëw di la di la laaj ah yow de takkal lañ la wujje yow de nangam yow de nangam parce que xam ñu bëgg lu ñu toog rek waxtaanee ko loolu la ñu bëgg donc yow da ngay mbuus ne njëkkee woo ko te doo ko mujjee waaw man noonu laa ko gisee kon bala ñu cee dox jëm ñoom ñaari ñëpp kenn ku nekk dañ laa war a tàggat ci li nga war a doxee waaw dañ la war a tàggat góor tam nay wax jabaram chaque jour su ma amee damay tàgg waaw dee ko wax mu koy taam bëgg naa la lool jigéen gënu la mais nag jullit laa de bés bu ko mënee damay takk ñaareel waaye loolu lan ñemee dund nga ko ci nga ko ciy yar waaw déedéet da ngay fo rek da ngay fo mu koy taam mu nga xam ne moom kii de dina takk ndax chaque jour wax ñun taxaw ñun dañuy nappaate rek ñun ñu dañuy nappaate rek dañ lay napp waaw dañ lay napp dañ lay napp bu ñu la nappee mu nooy mais bu ñu nappee mu dëgër nañu réglé ñun jigéen ñi ñoo mel noonu suñu almala nag loolu waruma ko sax wax fii ay jigéen dama mere yooyu mais soo ko dee wax chaque jour su ma amee damay takk day xam lu mu yàgg-yàgg kii dina takk mais bu mu waxee nga ne ko ma chérie yaay sama addina bu dul yow du ma dund bu la takkal wujju ku mel ni yow amul mu def loolu ci xelam hmm. mais soo xëyee xëyee takkal ko wujju lu am yow la mais li ñuy bañ nag moo yéen buñ leen koy annoncé hmm. ngeen dem ci paay dem ci meer di sunguf di reer loolu la ñuy bañ bu ngeen ko annoncé ak su ngeen ko annoncé wu yëpp dañuy hmm. sunguf dañuy reer ah. dañuy gas dañuy suul dañuy lakk ngeen wax ko ak ngeen ñàkk koo wax moo yem damay wax en tant que jigéen loolu moo ko man pour seela sama bopp damay wax fee yam yéen ngeen ko waxee suñu ko ñun xam nañ yéen da ngeen koy def mais nga di ko wax ñuy dégg nga di ko café même bu nekkee day mel sax nga koy café da am pour di ko préparé góor ñi it ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla waaw ñu ragal yàlla. góor ñi parce que parfois dañuy takk jabar. góor ñi jéng jéng goo xamante ne yàlla ni. Ah. waaw Fatou kay mbax na jéng jéng goo xamante ne. naan ko ah Bourdieu waaw naan ko naan ko naan ko ba ma ñu ba ma la xëy ba léegi. Bourdieu ci lay doog a ci lay doog a ci lay doog a dund. waaw waaw yooyu day am waaw waaw damaa dee woon. waaw ah damaa dee woon. waaw gis nga léegi sama sama biir bi ni mu toll. waaw waaw gis nga léegi fi mooy fi mooy aljanna. waaw tuddee ko ay firdaws sa aawo di dee. mais yow buñ la soodee yaa taal sa bopp. waaw waaw nee na am na question cameraman bi nee na am na question. waaw ayca nee na ayef yi ja jàdd fële. loolu mooy sàcc kay. waaw lu ci lislaam boo xamante ni nii góor boo xamante ni da ngaa yor ñaari jeer. waaw waaw jéng ci kenn. wéy lislaam yow waaw ah, waaw jéng ci kenn. Hmm. ay ci kii tëb kii. waaw bu yomal xiyaam boo dekkee da ngay jéng. Eh. voilà eh. da ngay weng da ngay weng. waaja ñu naan waaja lu ko daal da ngay weng ñu naan kii de daa jéngoon ci àddina da ngay weng de loolu la yàlla wax jëna ci bi nee na képp comme ay soxla te yemale woo leen waaw bu yomal xëyaam ne boo dekkee rek da ngay jéng naka daal waaw daal ñu ngi ci xale xale yi ña nga fa ñu ngi jàngal xalaat ñu leen di yar mhm. waaw macha allah kontaan nañu dégg nañ ci yéen bu baax merci beaucoup